alaykum sama waa tim tim sama Adja Traiteur alen, naa len ziar encore ci weeru koor bi j'espère que ça se passe très bien pour tout le monde Remercie suñu ay partenaires sen ay partenaires le groupe agroalimentaire Seifa ci sen taxaway tay nak dañ len di indil euh, poulet sauté pour sandwich parce que nous toggé une recette bi pour sandwich la gis ngeen suñu mayonnaise mu ngi noonu def nañ suñu frite def nañ suñu ketchup suñu pain bu bees tak waaw pain bu doy waar lañ am tay daal di ñëw baxal suñuy nen boole ko pour réaliser recette bi c'est très simple jëlee sa blanc de poulet maanaam dënn ginaar nga génne yax bi désossé ko tey nag maa ngi jéggalu jéggalu présenté wu ma ingrédients yi parce que j'avais pas trop de temps donc dama ñëw rek daggate directement ma jël vidéo bi fii donc jëlee sa blanc de poulet nga daggate ko en petit morceau comme ni ma koy defee nii ci vidéo bi soo ko dagatee pare nga jël soble parey nga daal di koy dagg-dagg yu gudd pour mu rafetal sa togg côté esthétique bi daal di génn parce que lekk tamit rafetaay bi da cee am solo dagg ko dagg yu gudd mu mun a ànd ak ginaar bi yëpp génn rafet dagg ko gis ngeen ni ma koy daggee nii bi ñu paree jël nañ suñu ñaari poivron vert boole ko ci pour mun di consommer légume ci weeru koor bi c'est très bien daggal say poivron man nak maa ngi def poivron vert ñaar gis ngeen def na haricot def naa carotte euh, comme légumes maa ngi def quatre légumes yi gis ngeen jël sama haricot quelque rek pour mun a consommer haricot légumes yi ci wéru koor bi carotte moo ci topp ñu dagg ko moom aussi ay dagg yu gudd comme poivron bi ak haricot bi comme ça ñu nuroo mu daal di rafet jël say carottes dagg ku am sa tomate fraîche aussi def ko ci mais comme j'avais pas de tomate sama frigo tomate bi ma amoon dafa xawoon tooy tuuti dafa xawoon nooy donc su ma ko ci defee da koy day rappajo moo tax j'ai préféré ne pas mettre mais mën ngeen ci def tomate fraîche ak yeneen légumes yi ngeen bëgg yépp pomme de terre lu leen neex bi carotte bi passé jël naa kaani guana pour parfumer sama togg la moitié bi nag laa def parce que dama doon bañ mu weex dagg ko en petit morceau mu daal di koy neexal ku bëgg mu saf nga def sa benn doom ñum wala ñaar jëla sa diwlin def sa cin def sa tuuti diwlin jarul muy bëri santé moom ak diwlin bu bëri àndul su demee ba sa diwlin tàng jëlal say morceau de poulet daal di ko ci def daal di yëngal bàyyi tuuti poulet daal di changer texture maanaam commencé jaxasoo ak diwlin bi daal ñu jël suñu nokkos suñu nokkosu yàpp nokkos yi moom ma leen ko présenté wax naa leen détails yi ci am yëpp daal def suñu ñaari kuddu nokkos daal di yëngal mu daal di maase da ngay xaw a def feu bi tuuti nag feu moyen pas feu doux mooy maanaam nga yokk ko tuuti rek parce que soo ko wàññee ba mu sës ginaar dafa am ndox day génn ndox bi day daal di mel ni comme muusal aspect bu croquant biñ ci am biñ ciy bëgg duñ ko ci am di leen aimé vidéo yi ma xam ne li may neex na leen carotte ak haricot ñom ñaar sen temps de cuisson yemut ak poivron ak soble bu len fàtte di abonné aussi bu féké abonné gu len motax carotte bi ak pois ak haricot ñom la ñëk def parce que ñom ñoy gëna jël temps pour ñor ma daal di touti ndox rek touti pour carotte bi ak haricot bi mëna ñor nak quand même tëjal sa cin bàyyi benn deux minutes carotte bi ak haricot bi ñor ba tey ginaar gi mi ngi ànd ak ñoom aussi du ñor parce que ginaar bi dañoo rëcc def nokkos rek sotti carotte ak poivron comme ça ñu àndandoo daal di ñor parce que ginaar dafa yomb a ñor te comme que dañ ko dagg en morceaux sa sera beaucoup plus facile suñu carotte ak suñu haricot commencé na ñor léegi nag soble bi nga xamante ni ak poivron bi ak kaani bi nga xamante ni ñoom moom boo xefee bala ngaa xippi sa mu ñu ñor ñoom ñaar ñooy mujj nga daal di yëngal nag comme ni koy waxee chaque jour ku bëgg sauce yolom maanaam boo xamante ni dangut nga yokk ci ndox koo xamante ni comme man nga bëgg ay sandwich yoo xamante ni dafay sauce bi dafay dang du nekk sandwich yu tooy nga bàyyi nii parce que li ci des yëpp ñorol ko yomb na soble bi yomb na poivron bi yomb na tëjaatal sa cin bàyyi ko benn deux minutes histoire de ingrédients yi dugg soble bi ak poivron bi mu saf sàpp nga daal di fay sa gaz waa gis ngeen deux minutes après ndox bi ferme soble bi nii laa ko mi mi mi cru mi cuit yem ci digg bi waaw ñorul xomb te aussi euh, dee na carotte bi ñor na poivron bi aussi noonu haricot bi noonu mi ngi nii suñu poulet sauté pour son de pare na baxal nañ suñuy nen def suñu mayonnaise fait maison bu doy waar def nañ suñuy frites surgelées tey surgelé laa def suñu ketchup ak suñu mburu xaaral sa mburu def say ingrédients def sa poulet def ci say nen sa sandwich neex diis weeru koor lañ nekk recette yu gaaw yu simple yu riche la ñuy defar bëri ay légumes neex a digérer vite fait bien fait remercier suñuy partenaire amuñu seen fay Seifa am na buy Seifa am na bisaab rouge ordinaire am nañ Vimto Seifa am na tigedege amna un amna café sen produit yëpp mi supermarché d'Akari. C'est numéro numéro téléphone mo ngi ni remercier nañ leen sama traiteur vous donne rendez-vous très prochainement pour une recette on est présent dans tous les réseaux sociaux